alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi allazi ixtasa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi xusuusiyaati qasarta bihimamul xalaa'iqi an yut'amu aw yasillu li bugdi gaayatihi wa anzala alayhi kitaaban ajaza al insaanu wal jinnu an yatu bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira salawaatullahi alayhi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu ayuha almushaahiduuna alkiram fii télévision sunu label tv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 bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ziyaar yooyu jiital nañ ci ñi yàlla jiital te muy kilifa diini yi ñaanal leen borom bi yal yàlla dolli sutura yi te la nekkoon ca seeni maam ak seeni baay dotteeku ci seen kaw su ma ci jagleelee ziyaar yeeg nuyoo yi sunu xalifa bu tedd boobu sëriñ Babacar Sy Mansour ni fi wuutu maam Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu mu yóbbaale mboolem xalifa yi géew jagleel nuyoo ki ziyaar woyjur yi nga xam ne ñooñu bokk njaboote ndokkeel leen ci weer wu tedd wi tabbi nañ ci bismillahi rahmaani rahim weeru nabil Moustapha waa ngoog yal na yàlla may nu nu yeggale ak sago te lépp ànd ak ngërëmal yàlla jaar ci ñaanal sunu directeur Haji Makhtar Silla yal na nu ko yàlla dollee taxawul dolli ko ay sutura ak i xéewal yu bette ba mboolem tabarfakalla mission bi yàlla may ko tawfiix ba mu yeggale ko sago waaye ñaanal ko personnel bi ci ginnaawam ànd ak moom ci liggéey bi di ko jàppale yépp nag ñaanal Adja ak mboolem nag personnel bi yal na la defal ñu taxawaay ci liggéey bi ba fan ko bëgg a yóbbu yàlla may nu kàttan nu yegg fa ak moom delsiwaat ci Diërsatu bi mag yéen ci rido yooyu nga xam ni ñu ngi ci weer wi nag macha allahu rabbi yal na yàlla nangu mbokk weer wu tedd waa ngi nii weer wu màgg waa ngi nii guddi gi gën ci guddi yee ngi noonu ñuy jub tabarfakalla ku ca tàbbi ci weer wa loo amoon ci cofeel dollil moom la ñu waxtaane maag yéen e, tabarfakalla fan yi ci loolu lañu ne ñu ngi doog a taxaw ci rideau bi ma waxoon ni nañu ko puus ngir lan dolli sunu cofeel ngir lan yeesalaat sunu mbëggeel ngir lan bokk ci ñi nga xam ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dala leen seen cofeel te ku yonent bi reconnaître sa cofeel rek nee na maag yow ñooy ànd dem aljana waaye mbokk yi ma wax ni bu ñu ñëwee ci weer wu mel nii tabbi ci weer wu tol nii di séentu guddi gu tol nii ku ne war nga fexe bokk ci ñi yonent bi di recevoir su ma waxee nag recevoir du yaay jug daagu dem wari ko fa mu ne waaye war nga fexe ba bokk ci ñu Moustapha di daagu fekk leen fa ñu ne moo xam nga gis ko zahir mbaa nga gis baatin nabil Moustapha moo ne ku ma gis wax la ko fi keroog Moussa neel gaa yi man aljana laa jëm <laughs> ku ma gis la wax de nena neel gaa yi olovaar aljana laa jëm Anas bun Malik moo nettali loolu mu ñoo toog ci jataay yonent ne man ra'aanii fil manaami faqad ra'aanii haqqan fa inna shaytaana laa yatamassalu bii loolu Anas a nettali anas ku ko jege woon la parce que dafa nekkoon liggéey katam jege ko lool anas nee na dañu toog benn jataay yi yonent la muhammad ne ku yàlla dimbali mu gént ma mbaamu janeer ma ba gis sama jëmm na yëg ni bu ñu dekkee dana ma gis jarran ndax man seytaane munul melowu sama melokaan kon ku ma gis man nga gis te ku ma gis ciy nelaw fa daaruhu minnatun daaru salaam na yëg ni dem na aljana moo tax maam Cheikhul Xaaji Malik ca ñaanam ga doon na ko wax laa taxrimanna ilahi lyawma ru'yatahu falaa yaxibanna man yarjuuka yallaahu laaj maal ne na ko laa taxrimanna ilahi yàlla yàlla boonu xañ al fii ci àdduna ru'yatuhu ñu gis la yàlla yàlla boo nu xañ ñu gis sayduna muhammad yàlla boo nu ko xañ ndax nag falaa yaxibanna man yarjuka yàllaahu jàpp naa ne ku dénk mbir yàlla tey li nga ko dénk mooy bëgg a gis yonent bi nee naa eh doo sooy li nga bëgg di ko am te mooy gis sayduna muhammad mbokk yi loolu na doon sunu yitte ñun ñëpp mais bëccëg yi da cee raw mais guddi yi da cee raw nanu ko jaayante teg ku bët ma waxoon la ne Boucherou am na gàllankoor wuñ ko wonoon gàllankoor woowu mag yéen ci lañ nekkoon Mouhamadul Boucherou mi nga xam ne guddi yi téeréem boobu day jolli ci xadara yi buñ ne démarré nañ rek téere ba jolli na moom ngeen dégg démb waaw moom geen di dégg tey ci guddi moom ngeen di dégg suba ñuy mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi kullihimi wax naa la lana tax téere bi mu bind ko te mooy gàllankoor gu nekkoon ci moom parce que bi mu bëggee gis bi Moustapha dañ ko ne da nga am gàllankoor libéré wul nga gis yonent bi mu faj sa gàllankoor Basiru départ jëm ci Moustapha gis rido bi ko gaale ñu ne ko rido bi da koy dindi waxoon naa la ko keroog mooy rido dolli cofeel mooy premier rido bi moo tax ma jàngal la cofeelu sayyiduna muhammad moo tax ñu ko doon jàng mag yow ma waxoon la ni loo ci mën ci dolli ci weer wi dollil loo ci mën ci dolli ci fan yi dollil parce que neel moo la gàllankoor ba gisoo rasulullah naa ko wax man mi gisul yow ma jàkkaarloo man te gisoo it waxal loolu nu bokk mag yow dolli léegi Moustapha ñëw waaye puus nañu rido boobu ah Moussa dañuy dem ci ñaareelu rido bu boucherie bi mu poussé rideau boobu dañ ko ne da nga dese beneen am nga ñaari rideau yu la gàllankoor dinil beneen bi ci digg bi maag yéen boobu ci digg bi te bu Boucher di ko dindi moom laa bëgg maag yéen ñu dindi ko mbokk yi dawal ci téere ba yow mi jàng burdu bi ñuy jàng fan yi première bunt bi moom laa doon jàngale man ak yow ci cofeel gi waaye tey ñu ngi ci deuxième bunt bi ñaareelu bunt bi ci burdu bi mooy ñaareelu rideau bi Boucher doon puus demal nga xool ko bu bi mu ko xoolee dañ ko dafa am lu gàllankoor sa digganteeg Rasulullah mu ne lan la ñu ne ko bakkan moo tax ci ñaareelu bunt bi bu yu jug rek na fa inna amaarati bi suu'i maa taadat min jahliha bi nadiri shaybi wal harami moo tax mu jug rek jubal ci bakkan ne ko a ah, yaa ma gàllankoor yow mi may digal lu bon <laughs> dégg mu tax da koo joxoñ rek ne ko yow ah, Ah, li tere Moustapha li tere Moustapha gane si ma yawa yaay sama gàllankoor mbokk yi bunt bu séeru bangoog muy ñaareel bi rido bangoog mbokk yi nee na ko yow yaay sama gàllankoor yow bakkan yow bi may seetaan neel sama ñaari rido ñaari rido bi ma téye ba maa gis rasulullahi moom la ustaas di waxtaane xaaral ma déglu ko en ah, ndekete bakkan la Moussa naa wax loolu nga wax loolu ñi ñuy seetaan wax loolu kenn ku ne dem xool bakkanam lan la ko diggal ci lu bon lu muy def ba tere Moustapha ñëw seet si ko musa xam nga bakkan léeg-léeg day jël palaasu yàlla loo tax moom loo tax moom euh, ku ko amee rek ku ko topp rek yaa ngi bi du ngeen àndati doo ko gis du ngeen bokk yoon foo ñëw mu dem waaw <laughs> ah. ah, Moussa xanaa xamoo am na ñoo xam ne gàmm guñ dugg yonent bi dem ñibbi <laughs> ah jar na xam nag moo bu leen foog gàmm yëpp la Moustapha toog ba mu tas de am na gàmm goo biñ ko ko tàntalee daa ñëw ba toog far seen benn délégation bu ñëw mu génn dem ñibbi am na kon fu mu toog ne nabi Moustapha dafa toog billahi lazi la ilaha illa parce que dafa jël bakkanam def ko yàlla lu samay wax de alxuraan lay bëgg a jàngale sunu borom moo ne ci suratu furqaan nabi mu ne ko labbayk mu ne ko ara ayta man ittaxada ilaahu hawaau afa anta takuuna alayhi wakiilan am taxsibu anna aktaruhum yasmacuuna aw yaqiluuna in hum illa kal an'aam bal hum adallu sabilan allahu akbar bokk yi ci suratu furqaan sunu borom dane nabi xanaa gisuloo gaa yi nga xam ni dañoo jël seen bakkan jël seen bànneexu bakkan jàppee ko yàlla oh Moussa xam nga Iblis euh, moom li muy saay saay saay saay saay saay du taxaw palaasu yàlla moo tax euh, billaay Moussa Iblis li muy saay saay saay saay dem mukk position yàlla dafa taxaw iblis li muy saay saay saay saay xam nga lu muy wër ku mu àndal ngeen dem safara moom loolu lay wër moom boo ko séenee ci penc mi li muy wër mooy ku mu àndal ngeen dem safara moo tax am na koo xam ni moom iblis la àndal mais àndam ak iblisam moonte ne sax de Moussa taxul mu def iblis yàlla xam na ne yàllaa ngi fi waaye dafa ànd iblis moo tax moom mu weddi li Muhammad ne weddi ci lii ngeen ne weddi ay gàmm weddi ay julli weddi ay koor weddi ay sëñ alaaji Maalik sëñ Tuubaa yooyu da ko weddi gëmul diine mais dafa collaborer ak Iblis am na mën nam ci beneen diine sax bu mu ne mën na ne sax ci beneen mais contre na li ngeen ne yéen kon bul ne dafa contre yàlla moom contrôle yàlla mais Iblis la àndal moo tax mu contre Rasulullah moom gis nga kooku Iblis du ko du jël mukk palaasu yàlla di toog ci moom moo tax waajooju li muy ñàkk gëm ñàkk a gëm yépp diine lislaam terewul xam na ko yàlla waaye Moussa xam nga bu garaaw mooy ki gëm diine lislaam gëm yàlla gëm yonent bi waaye ànd ak bakkanam ba bakkanam mujj ne ko yàlla amul allahu akbar moo tax bakkan rek mooy yóbbu nit ci nga dem ba jàpp ne yàlla amul loolu bakkan a koy def nit mais iblis du ko def nit sew sew la nag bu jara bu jara bàyyi xel parce que ñëpp dañu jàpp ne iblis a gën a garaaw d'accord iblis a gën a garaaw mais fi la bakkan di yóbbu moom ñoom moo la faa yóbbu bakkan mooy xuus yow ci géej di la yóbbu ci géeju njubadi di la roof ci géeju njubadi ba ci yàgg moom bakkan mu yóbbu la ci tefes gu ñuy tuddee yàlla amatul nga tàmbali nag looy defate ci àdduna doo ci bàyyi xel yàlla mbokk yi bakkan rido la bu dox suñu digganteeg pour ñu teg bët sayyiduna muhammad ci laa nekk de waxtu ma dab waaye maa ngi ci ñaareelu rido bi man ak yéen mbokk yi moom la ñuy waxtaane fan yi xool nu ñuy def rek pour orienté wu ba mën a puus suñu rido bi tudd bakkan ndax bu Busiri moom lay puus de mooy ci ñaareelu buntam bii ñu nekk fa inna amaarati bi suu'i maa taadat min jahliha bi naziri chey bi wal haram bi waxtu ma dab mais tegal foofu baaraam man ak yow subu ñu àggale aaya bi waaye waxtaane bunt bi ndax bakkan rido la bu nu gàllankoor nañu ko puus mbokk yi pour bën a janoog Seydina Muhammad ci guddeem gu tëdd gi nga xam ni maag yéen ci la ñu jëm ci wooteeg mam Cheikhul Xaaji Malik bu màgg wow nga xam ni ca la waxoon ne ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwa alxaraami adulu mbokk yi maa ngi teg foofu baaraam joxaat leen rendez-vous suba gërëmaan ñëpp santaan ñëpp wax la waxkat ba waxoon isa aradtum salaamata al ardi fattabi'u muhammadan wa arib hayatal umami mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu